ñaari ñu bëri moo xam ci góor wala ci jigéen dañuy bàyyi ba jafe-jafe am ñu soog di def noob noob nag yow mi nga xam ne bëgg ngaa noob te bëgg noob gi jàpp ni ngay def da ngay fexe dof noob ki ngay def noob da ngay def ko noob noob ko ci bi jàmmu amee ci bi waxtaan amee ci bi jàmm amee ci gàttal ndax bëri na kuy def noob ci diggante borom këram bëri na kuy ci def noob wala mu ci def dara pour jàmm amaat ñaari dangay def ba sonn rek mu bàyyi li waral loolu mooy noob yi ngeen di def da ngeen di def noob te waroo leen a def noob boolante ngeen war a def boole bu demee ba jafe-jafe am am nga sa borom kër wan na la ginnaaw ndax jigéen am nga sa jëkkër wan na la ginnaaw ndax jigéen am nga sa soxna war na la ginnaaw ndax góor am nga itam nit koo xam ne bëggoon nga koo takk mu wan la ginnaaw ndax góor wala mu wan la ginnaaw ndax jigéen yow mi nga xam ne nit daf laa wan ginnaaw ne la amatul ci yow benn soxla ndax nit yow mi nga xam ne loolu dafa am ni ngay def da ngay def li nga xam ne maanaam moom mooy boole boole nag uuti na ak ak li nga xam ne maanaam moom mooy nopp nopp bu ñu koy wax mooy nit koo xam ne yaa ngi ci sa biir sëy yaa ngi ci sa biir sëy bëgg sa sëy continuer ci jàmm nga ut loo xam ne luy luy luy def ba jàmm jooju saxla luy def ba jàmm jooju continuer la waaye lu ju ëpp ci nit ñi ci góor ñi wala ci jigéen ñi li tax seeni mbir bis bu ñu demee ba am jafe-jafe ak seen borom kër dañuy def ba sonn bàyyi bis bu ñu amee jafe ak seen soxna dañuy def ba sonn bàyyi lu ko waral mooy dañoo defee ne nit ku la wan ginnaaw nopp ngay def ci moom pour mu dellu si déedéet nit ku la wan ginnaaw jubale mooy am ba noppi nga soog di def loo xam ne nopp la lay doon boo xam ne loo wax waaw mu ne waaw loo wax déedéet mu ne déedéet tey nag secret bi ñu leen indil lii njëriñ li mooy fexe ba sa diggante ak sa borom kër kenn du ko yàq kenn du ci mën dara ndax léegoo léeg sëy yi am jafe-jafe ñi nga xam ne ñoo nekk ci sëy yi xam nañ ne sëy bii ci jafe-jafe la jëm ndax soo amee sa borom kër doo ko laajee mu du la jox soo amee soxla ci moom du ko faj mën naa toog boo loo wax mu indi coow ngay ni coow coow yoo xam ne du doon coow yi dara coow yoo xam ne dafay jur wax ci seen diggante ngeen di wax wax joo xamante nii daanaka yow boo gisut sa borom kër ngay nekk ci bànneex boo ko gisee da ngay nekk ci naqar li ko waral mooy ci coow rek ngeen di dëkk ci coow yu ñàkk fayda yow mi nga xam ne loolu daf laa dal ci sa diggante ak sa borom kër li lay jëriñ mooy nga ut noob def ko ci balaa coow ji gën a am tey nag secret bi ñu leen indil secret la boo xam ne secret non bu doy waar la bu yéeme bu garaw boo xam ne képp koo xam ne def nga ko nit incha allahu rabbi yi ki nga ko def dana mel ni xar ak boromam loo wax waaw dana wax waaw loo wax dana wax déedéet yow mi nga xam ne yaa ngi déglu vidéo bi ni ngay def dangay ngay bind bismillahi rahmaani rahim waaye nag bismillahi rahmaani rahim boo koy bind dangay ngay bind rahimi rahmaani allahu bismi noonu nga koy bindee comme ni ngeen ko gisee da ngay ubbi miim yi miim yi ngay ubbi miim gu ci nekk ñetti miim la bul ubbi haaji ñetti mimi rek ngay ubbi bo noppé nga def ci sa tur yow mi nga xamné yaay nopp ki nga xamné mom ngay nopp ak tour yaayam mom nga koy defee yow mi nopp bu féké sa borom kër la da ngay def yow sa tour ngay def yow soxna si nopp sa borom kër def sa tour yi borom kër def tour yaayam bo noppé inshallah koy def ñetti yoon nga lem ko téré comme ni ngeen ko gisé ni bo bindé li ba noppi inshallah rabbi koy euh, tëjee salaatu ala nabi bu la neex lii nii numéro bii bokku ci boo noppee da nga koy tëjee salaatu ala nabi bu la neex nga bind ko ba man ñetti yoon kun bismillahi rahmaani rahim nga def rahimi rahmaani allahu bismi nga ubbi miim yi def fa sa tur def fa tur yi ma la wax boo noppee nga tëjee ko salaatu ala nabi bu la neex boo noppee incha allah nga def ko ñetti yoon boo ko noppee da koy lem def ko téere téere bi nag da ngay ut béjjën ñetti jën comme ni ngeen ko gisee nii. ñaari béjjini xar ak benn béjjini bëy waaye xar yi dañuy nekk xar yi jigéen bu fekkee góor nga béjjini xar yi jigéen ngay ut bu fekkee jigéen nga béjjini xar yi góor ngay ut góor béjjën bi mu ngi mel nii ngi moom ngay ut boo ko utee ba noppi incha allah nga ut ci ñett boo noppee danga leen di lem bu ci nekk nga dugal ko ci béjjën bi boo noppee da koy suul ñetti bërëb yoo xam ne penku la jublu waaye bokkul ñetti bërëb. benn bi mën nga koo suul ci géej benn bi nga suul ko ci jàppoykaay foo xam ne nit bu toogee bu toogee daal day jàkkaaroog moom penku benn bi ci des nag ñaareel ñetteel bi ñaar yi ngay suul foo xam ne waxtu nekk dafay tooy comme ni ñu leen ko waxee waaye nag penku lay jublu ñetteel bi danga koy ëw def ko téere bu fekkee ne ni xar nga ut nii kenn du ko ëw di ko takk danga koy wàññi ba tool nii boo ko yóbbee ci ministre métal yi danañ la ko wàññil ñu wàññil lako bam tol ni nga def nga def ci ñettel bi ëw ko tak ko téré bo noppé da ngay bind bismillahirrahmanirrahim mom ngay bind mim bi ci nek nga duggal ci tur sa tour sa touru borom kër ak tour yaayam sa soxna yow sa turu soxna ak turu yaay sa soxna ko bëgg nopp rek mom ak tour yaay ñoo ci nek ak yow mi leen ni nopp sa tour bo noppé da ngay bind lu tollu ci 27 fois nga def ko ci ngat nga sangoko ñetti fan incha allahu rabbi képp ku ko def nit seen diggante dana mel ni xar ak boromam loo wax waaw dana wax waaw loo wax déedéet dana wax déedéet incha allahu rabbi ñu ngi sant ñu ngi gërëm ñu ngi leen di ñaan yàlla yàlla yàlla may ñu dégg may ñu topp yàlla na yàlla aar ñu sàmm ñu làq ñu fa nga xam ne kii yàqu dafa fa yegg yàlla mën na ko am na ko yàlla na ko yàlla def yaa rabbi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu